Bienvenue sur Salam Vision. ma jëli sama vibes ñëw seet si vibes ak style salaamaaleykum mbokku internet yi ñuy seetaan ci salam vision point net mbégte la ñuy am tey ak kontante euh, ñëwaat fii seet si ku nga xamante ni nii euh, ndaw la mais aussi itam euh, ku ku ku ku bëgg liggéey la muy Medza King xarañ sop di ndaanaan dootuñu ko présenter ti ci réew mi mi ngi fii Colobane di yëngu ci lépp lu nga xamante ni lu jëm ci wàllu habillement la Medza King maa ngi lay siyaare. waaw DJ Ous ñoo ngi siyaarewaat di la dellu siyaar bu wér wér di nuyu ñi nga xamante ni ñooñu seetaan di am mbégte bu baax baax ci teew bi nga teew fii donc euh, ñoo ngi am mbégte bu baax baax daal ci teew bi nga xamante ni teew nga ko fii ci Colobane def sa déplacement indi sa matériel indi lépp xam nga rien que pour seet si benn jeune boo xamante ni xale la xama di Metsa King xam nga ci lañ ko gën a xam ko waa donc ñun daal ñooy fii Colobane vraiment képp ku ñu soxla rek mun nga fi ñëw incha ndeysaan Medza King lan moo waral Medza King bi avant muy ñëw ci euh, xarañ sob bi ak euh, ci li yëngu lan moo waral Medza King. waaw donc euh, Medza King bi benn action la boo xamante ni su ma ko doon expliquer mun naa dinañ fi yàgg trop quoi voilà parce que benn affaire la woon bi ñu nekkoon man ak samay morom xama nekk ci parce que business dina am genre yoo xamante ni soo ci xasee ba nekk yow ak say morom yéen ñëpp a ciy nekk. am na boo yoo xamante nii ñoom au lieu ñuy créer mais dañuy xaar benn Metsa King créer xama après ñoom ñu pirate Metsa King rien que pour que mun a di di jéem a teg euh, mbagg Metsa King quoi xama ci yow la ñuy copier waaw ci man la ñuy copier mais biñ demee ba nga xamante ni euh, ñu demee ba xam ne affaire du niveau après nag Euh, du question ko man maa tuddee sama bopp Medsa King donc tur bi kese Medsa la woon quoi mais bi gars yi demee ba ci biir ma dégg ci marché bi gars naan Medsa mooy King bi mooy loolu loolu moo indi Medsa King quoi. donc moo tax euh, ñu indi Medsa King bi sa veut dire que kon yow yaay euh, roi bi parce que King mooy mooy mooy mooy mooy mooy kilifa gi donc ci création yi nga doon def noonu da nga def teer wala. non man nag def moon teer quoi voilà donc dama ñëwoon carrément. man vision bi ma amoon mooy dama doon ambulant quoi voilà dama doon ambulant mais bi ma demee ci ambulant bi dem ba benn instant ma dugg ci euh, pra pra prêt-à-porter yi xam nga dem ba benn instant xam nga may dugg ci yor xam nga rek téléphone actuellement technologie bi dafa développé quoi vala donc may may dugg ci internet bi di gis genre ay modèles yu bari man lii pourquoi pas ma créer ko quoi fekk am naa moyen bi xam nga voilà ma après dama mujjee am sam place. régler samay booy xam nga voilà pour que booy ñoom leen lañ am ci liggéey bi quoi man damay dem man maa indi modèle bi carrément ma ne la nii laa bëgg ak lii après yow nga joobal ma comme noonu teg teg voilà donc parfois sax pour ñu am échantillon bu baax nii sax day day métti quoi parce que booy en général premier échantillon bi day day am ay défaut quoi mais dinañ ñaw ñawaat ñawaat après euh, parfois ay quatrième bi mooy baax quoi wala cinquième bi quoi xam nga ñun boobu la ñuy jël ay ay nit. ñu sol ko comme par exemple euh, boo fekkee yaay suivre sama statut wala ñi nga xam ne ñooy may seeraan nekk sama group xam nañ baax li may wax dañu obligé dañuy obligé wut benn góor ak benn jigéen fay leen ko fay leen xaalis pour ñu sol affaire yi xam nga buñ solee affaire yi ñoom ñooy génnee modèle bi quoi. pour def promo bi pour def promo bi donc modèle boobu noonu coono biñ ciy daj la tànk ñu koy génnee loolu loolu laa leen doon mooy que du question que joxe benn modèle la ñu génnee la noonu. Mm-hmm. foog booy dinañ ñëw un deux trois ba quatrième bi après ci lay ci lay soog kii quoi ci lay soog a normal. loolu mooy inspiration donc ko su ma déggee sa wax sa jaar-jaar ambulant nga njëkk def euh, bi nga jugee ci ambulant nga am idée wu euh, taxawal sa yëfu bopp. Euh, am idée wu aussi dem di xalaat ay ay ay yu nga xamante ni da nga dem ba créer sa équipe euh, di liggéey ak ñoom donc fii li ñu nekk ni tey euh, moom mooy place bi mais avant ñuy ñëw ci consommé local bi parce que gis nañu ay blouson peut-être après sama caméraman dinañu ko woon mais da nga yëngu aussi tam ci wàllu importé. waaw ñun comme par exemple bagage yi nii Turquie la jugee quoi dañ koy commandé voilà parce que am nañ fa ay nit yoo xamante ni ñooy fa. voilà léegi modèle boo am rek ñoom soo leen ko envoyé ñoom dañ lay laaj carrément ñaata pièce nga ci soxla xam nga soo leen soo soo ko waxee ñaata pièce nga soxla après ngeen waxtaan ci prix bi quoi soo leen jubewee ci prix bi moins de 3 jours 4 jours day ñëw Sénégal voilà loolu moom c'est simple quoi. donc kon say bagage turki gu koy jëlee. voilà yu ci bëri moom turki lañ koy jëlee voilà à part yi nga xamante ni local la quoi lépp turki la quoi. voilà ñun moom bagage turki sax moom lañ ëpp lu ñuy jaay. voilà donc local bi moom dañ coo patienté waale nii rek parce que ñu bari biñ leen pro depuis ñu proposé leen local ba léegi toujours ñoom ñoo ñu ciy gën a motivé di ñu wax que ni local bi moo ñu gënal voilà loolu moo tax ñu def concentration ci local bi mais aussi ñoo ngi jaay tamit bagage boo xam ne turki lay jugee. macha allah donc boo gisee li tax ma dugg foofu euh, ndax nit danga war a gëm sa bopp euh, te dañu wax ni euh, consommer local. Euh, tey euh, man sol naa ay blouson yu nga xamante ni euh, defar nga ko yónnee ma ko ma sol ko mais bi ma ko solee lépp lu ma amoon mu nekk importe dama ko teg fële te nit da ngay gëm sa bopp ma gis liggéey bu rafet bi nga xam yaa ngi koy liggéey ci blouson bi blouson yi tiis yi fan nga koy jëlee fii ci réew mi. voilà donc tiis yi am na ci yoo xamante ni fii lañ koy jëlee fii ci réew mi donc Colobane fii am na ñoo xam ne ñooy jaay tiis yi mais parfois tamit di am modèle boo xamante ni qualité tiis bi ngay soxla doo ko fii quoi. après comme li ma la wax sànq dañuy commandé mu jugee Turquie xam nga bu ñëwee après ñu kii ko waaw yooyu nag par kilo lañ ñu koy jaay quoi. voilà par peese la voilà par peese la léegi yow da ngay da ngay xool ñaata pilo par exemple mun nga wax peesal ma ci cent kilo voilà bu fekkee tamit ay couleur la mun nga tamit joxe nga ne ko bële bi defal ma ci tant de kilo bële bi defal ma ci lii rouge bi defal ma lii rouge bi defal ma lii xam nga léegi après bagage boobu su ñëwee nga jox booy modèle bi. booy door ko après fekkee tamit bagage boo xamante ni bagage bu kii mun nga ci commandé loo xamante ni lu bari lay doon quoi. donc euh, li nga xam ne moo di local bi ak importé bi yow ban nga jàpp di moo gën a dox. voilà local bi ak importé bi donc man ñaar yëpp mun noon mi dox sama côté quoi. voilà ñaar yëpp mi ngi dox sama côté parce que client bi nga xamante ni moo fi jënd local bi kooku tamit moo fi jënd importé bi quoi. voilà amuma benn client boo xamante ni day ñëw kase di choisir local bi wala benn client boo xamante ni tamit day ñëw di choisir importé bi kase quoi. voilà donc client yëpp dañuy boole lépp di jënd ko mais local bi sénégalais ñu ci ciy gis seen bopp. bu baax a baax a baax local actuellement may wax ak yow nii li ma ci créé kese moo ci des am na yu may waaj a créé waat nii. voilà donc loolu kese moo fi nekk ci place yi pour l'instant loo xamante ni local la voilà mais à part loolu man bagage local moom lu ma ci wàccee rek gars yi dañ koy jënd quoi vraiment lu ma ci wàccee moom du taxaw moom. man gis naa blouson yi parce que am na ci blouson yu nga xamante ni nii euh, man nee naa la moom a gënal importé bi euh, te yow yaa koy créé euh, jox nga ma fi blouson boo xamante ni nii Galsen lañ ci def donc mu nekk loo xamante ni da koy sol fu man koy yóbbu fu nekk représenté fa Sénégal mu nekk loo xamante ni nii donc doomu réew mi ci boppam moo ko def. dañuy obligé créer suñuy modèle donc bii moom man maa ko créé carrément man maa dugg xam nga télécharge samay application xam nga créé sama benn logo bu ndaw ñëw sama benn yére boo xamante ni unique la après ma door ko ci voilà. mais ana modèle bi am na benn modèle voilà jox ma bule bule bi dafa mel ni gis naa benn bule fële voilà jot li ma ko voilà c'est ça donc gis nga bii euh, bii happy new year 2023 donc lii. li nekk loo xamante ni nii affaire bu nice la doomu réew mi moo ko créé mais ban ban ban ban ban mais boo yow yow yaay king bi ah. mais neexul ba neexul mais yaay king bi mais ni nan la inspiration bi nu mu dikkee ba nga créé lu mel nii. voilà donc mooy li ma la tegal sànq rek xam nga ñun moom lii rek lañ am quoi ñun dañuy toog toujours di xool toujours lan lan li nga xamante ni moom mooy doxal suñu liggéey rek donc ñoon loolu rek moo mën a jël suñu temps quoi. voilà li mën a doxal suñu liggéey kese moo mën a jël suñu temps mais à part loolu le reste lépp mooy loolu quoi dañu jàpp que ni c'est mais lépp loo xamante ni gis nañ ne war na mën a doxal suñu liggéey rek dañ ciy def suñu temps lépp voilà donc lii nii dama toog yor yor naa application boo xam ne logo bu ma bëgg ba pare tamit sama gaale dama fa yor ay machine voilà yor naa ay machines yoo xamante ni damay créer ay affaire di teg man maa koy génne lépp am naa tamit loo xam ay flocage ak lépp laa am voilà man moom wax dëgg manqué wu ma dara quoi. donc kon yow boo nekkul ci place bi aussi yaa ngi sa kër di créer ay modèles yoo xamante ni nii boo ñëwee da koy mën a jox booy pour ñu mën ci euh, sukkandiku pour ñaw ci ay blousons. voilà donc pour wax la man man mun naa que ni man trois heures du matin lay am temps trois heures ba ba cinq quoi. liggéey waaw man trois heures ba cinq heures huit heures maa mars huit ba dix neuf heures maa ngi mars mhm. léegi su ma wàccee gàlle maa ngi ci machine yi. waaw di dugg di génne nekk ci machine bi gars ma boxal gaale sax dañ may wax sa waa ah, yow di nga dof quoi voilà man moom ci yooyu rek ci lay nekk toujours maa ngi xool li nga xamante ni lan laa war a créer lan laa war a créer voilà donc à part lii sax à part 2023 bi sax maa ngi créé waat yeneen affaire yoo xamante ni pour Saint-Valentin bi la voilà parce que 14 février parce que voilà lépp mi ngi ñëw parce que soo xoolee euh, décembre ak 14 euh, euh, février bi voilà parce ay un mois et quelque léegi bi may def shooting bi ma ni pourquoi pas ma defaale yeneen shooting pour que nga xamante ni 31 bi day kii rek nga nga dugg ci février bi donc yooyu tamit yaakaar naa mi ngi fi quoi blanc bee daa mel ni moom la quoi. blanc boobu en tout cas kii euh, jeune la bu nga xamante ni nii euh, Sénégal yëpp war nañ ko jàppale euh, ndaxte lii doomu réew mu ci boppam moom moo ko créé gis ngeen ko nii donc période bu nekk dafay am loo xam ne dafay ànd ak moom bientôt ñu dugg ci 2023 happy new year 2023 donc mu nekk loo xamante ni nii affaire la bu nice bu ñu jugee ci décembre janvier février. donc lii la créé pour Saint-Valentin bi donc kon da nga te dara xewagul. dama anticiper waal donc mooy li ma la wax sànq yii yëpp après dañuy jël suñu temps pour booy génne waaleel ñu kii bi échantillon yi donc lii lépp ay échantillon la mais bagage yi moom su waree génn day bari trop ba nga xamante ni clients yi fu waaye tollu après dinañ la mën a yónnee sa bagage waa am nañ ñoo xamante ni dañuy nekk ba Thiès ay Mbour Fatick fépp voilà mais da ngay joxe sa numéro téléphone après nga wax li nga bëgg rek loolu kese voilà ñun noonu lañ la. yéen a koy livré lépp ñoo koy livré lépp ñoo la koy livré voilà ñun ñoo livré bagage bi yow sa xaalis na dugg rek sa xaalis bu duggee rek sa bagage day teew quoi. voilà donc mi ngi noonu euh, mbokku internet yi xam ngeen ni nag euh, jeune bu mel nii. dafay am solo ñun ñu déplacé wu ñëw euh, dalal ko euh, parce que euh, Sénégal la ñu dëkk te bu ñu gisee genre jeunes yu mel nii nii ñun dañu am courage yu ñëw and ak ñoom parce que lii muy liggéey aussi itam dara gënu ko rafet importé am na solo trop mais aussi itam nañu consommer li nga xamante ni nii fii lañ koy defaree ci réew mi donc doomu réew mi moom moo liggéey lii tey lii xam nga xale bu jigéen bu ko sol mais est-ce que des fois di nga créer yoo xamante ni ay couple lay doon comme nga gis jëkkër ak bëgg hôtesse léegi. si parce que ñun moom dañ foo dañ fee nekk carrément pour ñëpp. waaw ñun moom dañ fee nekk carrément pour ñëpp. tey dañuy dañuy def ay commande yoo xamante ni nekkul sax loo xamante ñun ñoo koy créé tey benn DJ Ous mun na jugee fee rek envoyé nañu benn benn ensemble quoi voilà nañu bëgg nañ ci cinquante pièces voilà euh, par exemple booy ñaar tali temps yi ci ginnaaw rek ñawal naa leen ay mayo quoi ñoom seen mayo. carrément da ngay da ngay ñëw ay mayo aussi. voilà ñoom dañ ma indil échantillon bi rek bi teg teg. voilà même booy Pikine yi AS AS naa leen ñoom tamit voilà même peene jamono bu Dakar Plateau dama leen di ñawal ñoom tamit voilà même open press Balla Gaye bii paase rek am na ñoo xamante ni man maa leen maa leen kiyal quoi seen seen hôtesse yooyu noonu voilà loolu. zone euh, zone bleue yi ma gis gars yi sol. yooyu man maa xa ñëw quoi. macha allah donc kon euh, confirmation la parce que démb euh, ñun ñi ngi woon stade euh, di couvrir linga nga xamante ni moom moo di open press bi gis naa mbër yi sol ay yére yu nga xamante ni jaune bleu la jëmm jii nii moom moo ko liggéey donc Samir Sénégal li nga xamante ni moom lañ doon joytu am nañ ko parce que tey boo xoolee bientôt ñu dugg ci nawetaan yi ASC yi dañuy soxla ay mayo soxla ay blouson donc nga dem si yenn salle de musculation yi gars dañuy soxla ay équipement salon de coiffure yi dañuy soxla ay équipement donc yenn école football yi dañuy soxla ay équipement donc képp ku nga xamante ni soxla nga liggéey bu nga xam ne ni bu am qualité la ta mel nii dangay ñëw marché kolobaan nga jokkoo ak Medza King euh, moom mooy king bi man nangul naa la ne yow yaay king bi parce que liggéey liggéey rafet na aussi itam euh, sell na euh, tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo la xamul te di la seetaan ci Salam Vision ku bëgg a ñëw marché Colobane nan lay def ba yegg fii ak numéro téléphone yi. voilà donc boo ñëwee ba Colobane rek mun nga laajte carrément rond point Colobane wala bu fekkee foofu nga wàcc carrément da ngay laajte garage bi rek waaw ñun ñoo ngi suuf ci garage bi am na benn immeuble bu nekk foofu caro yi la ak beige voilà ñun ñoo ngi premier soo laajtee Metsa King après gars yi la wax quoi en même temps am nañ ay numéro téléphone am nañ tamit ñoo xamante ni ñoom ñoo. jox ma numéro téléphone yi. donc numéro téléphone yi 78 euh, la 229 51 41 voilà beneen bi 78 la 342 Euh, beneen bi aussi 77 043 92 70 donc yooyu yëpp am na WhatsApp en même temps soo leen woowee dinañ disponible quoi. ok dafa mel ni nag euh, ku bëgg làmm nga parce que dama gis Medza King ba pare xarañ sop lu waral loolu. donc xarañ sopp bi moom ci liggéey bi ma nekk la quoi. voilà donc dafa am benn gaan boo xamante ni man ak moom ñoo seq liggéey bi donc kooku gars yi xarañ lañ ko gënoon xarañ xarañ la gën a xam moom mi ngi fi yoon sànq nii voilà kooku xarañ alias Ali la tudd mais xarañ la ko gars yi di woowee. dafa xarañ ci li muy liggéey. waaw moom tamit man ak moom dañuy liggéey ci yu bari quoi. waaw parfois comme li ma la wax sànq am na yoo xam ne moom dafa ma koy transfert na ma booy xoolal li xoolal li ba xam dinañ ko mën a job quoi léegi après man su ma xoolee dama koy kale sama machine rek ma ne ko waa lii mun na nekk mu ne ma léegi tisi bi après dañuy dugg ci biir dëkk bi wër ko bu amuñu tisi bi tamit ñu commandé ko comme ni ma la wax sànq mun nañ ko commandé ñun moom ñooy fi quoi tisi ba modèle boo ñu indil rek modèle boo ñu indil xam nañ ban tissu moo ko war a ñëw quoi waaw modèle boo indi xam nañ ban tissu lañ ko war a ñëwee ba nga gis sa bopp quoi. en tout cas ku la ñemee dina ñeme lu nice xale yu jigéen yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ci Salam Vision xale yu góor yi euh, maire yi ak paa parce que aussi tam am na ci ay paa yu bëgg seen bopp yoo xam ne dañuy soxla ay ensemble blouson pour man di defi sport. donc yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan King baa ngi nii Medza King ñi ngi Colobane bu ngeen ñëwee ba ci rond point bi comme ni leen ko waxee numéro téléphone yi mi ngi affiché ci bandu écran bi donc mën ngeen ko jël su ko defee ngeen contacter ko képp ku nga xamante ni am nga commande yónnee ko modèle jox ko sa taille mu defaral la lim lay defaral ba pare livrer la ko donc Medza kiin euh, carte gu mujj gi ak euh, laaj bu mujj bi le 6 janvier dinañ ci ñëw léegi ndax le 6 janvier aussi itam moom xamoon na. parce que heure bi daaw def nañu le 6 janvier mu bette ma ak ensemble lu blouson boo xamante ni kenn mënu ko wax le 6 janvier bii damay jox euh, fans yi soppe yi xarit yi am de jàmm yi na ñëpp ñëw dugge fii ndax le 6 janvier bi ñi ngi jëm Ravin Night Club Saloum Ndongolo ànd ko ak Petit Bara yow parrain d'honneur nga dañ la invité nga ñëw te dama bëgg ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñëpp ñu jël numéro bi mi ngi ci suufu bande écran bi ñu contacter Medza King mu ñawal leen ñu sañse àndandoo ak moom fekk ñu Raven Night Club pour le 6 janvier parce que moom mii dañ ko war a delloo njukkal le 6 janvier foofu ci Raven Night Club lan mooy kàddu yu mujj yi. waaw incha allah waaw di wax gars yi rek ñun ñëpp ñu teew fa xama jàppale ñi nga xamante ni ñooy Salam Vision TV voilà donc ñoom ñooy def liggéey bu rafet. voilà du question que médecin ki kese lañ seet mais am na yeneen nit yoo xamante ni ñoo ngi leen seet soo leen duggee seen pass di ngeen gis carrément liggéey bu rafet ñuy def. voilà di wax gars yi ñu abonné xama def concentration di déglu carrément li nga xamante ni moom la gars yi question yi am na solo voilà parce que am na ñoo xamante ni ñoo ngi dem di seeti nit leen jox ay yenn question yoo xamante ni doo comprendre quoi mais depuis ñu nekk ba léegi question yi ñuy jox lépp vraiment ay question yi am solo la question yoo xamante ni dañu am contentement bu baax a baax pour répondre ci voilà di jox gars yi rendez-vous voilà. ayca waa yow kan mooy sa man sama artiste préféré bu fekkee ci mbalax maani la euh, Pape Diouf quoi. Pape Diouf <laughs> oui. Pape Diouf ngay bëggee. Pape Diouf moom lay bëggee lan mooy sa plat préféré. plat préféré ceebu jën xanaa. oui. <laughs> merci beaucoup mbokku internet yi ñu jaajëfal ko bu baax a baax euh, Medza King euh, xarañ shop mi ngi fii ci Colobane bu ngeen ñëwee ba ci rond point bi numéro yaa ngi doon di affiché ci bande écran bi man ngeen ko contacter képp ku nga xamante ni bëgg nga commande da koy woo téléphone nga yónnee ko sa taille. mu joobal la livré la ko doo ci am lu la metti yéen xale yu jigéen yi yéen xale yu góor yi décembre baa ngi nii bu ngeen bëggee di billi ba fu ngeen jaar ñu naan kii ku mu doon Medza King mooy yëngal gësëm yeneen a ngi ñëw ak yeneen feeñ ñun ak moom du jeex jaa ngeen jëf Bienvenue sur Salam Vision.